jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb mbokk yi nuy nañ leen am kontaan te ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne nag ñu dalal koo xamante ni gis ngeen ko yàgg naa ko jël naam mu yàgg wax ci làmb muy sëriñ moor tey ñu seet si ko ngir bëgg a waxtaan ak moom parce am na situation boo xamante ni keroog ma ngi ko fekk stade Iba diggante Papa Boy Djiné ak Jacob Balde ma gis ko mu ànd ak Papa Boy Djiné nekkoon ak nekkoon ak moom di ko ñaanal ci préparation mystique yi loolu yëpp dinañ ci ñëw mais ginnaaw loolu dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñëweel waxtaan sëriñ bi maa ngi lay nuyu baax di la ziar. waaw baajul ñu ngi lay delloo baax di la nuyu ginnaaw bon sant yàlla julli si bi sant suñu ñaari waajur di sant suñu yaakaar àdduna ak laaxira mi sëñ Babacar Si xam la mag li soog a ñëw soob yàlla. am na solo mhm. euh, sa diggante ak nu ñëw stade ma jékki-jékki rek gis la nga dugg si. Mhm. ànd ak moom. bi nga ñëwee ànd ak Papa Boy Djiné lan moo la booleeg moom ak lan moo la indi woon stade keroog. waa Papa booy Djiné ku ñuy wax Alassane moo booleeg moom. Hmm. Alassane sama xarit sama wëlëre bu yàgg la boole ma ak Papa Boy Djiné ma ko doon ñaan si làmb ji di ko jàppale. Hmm. moo booleeg moom papa nekk tamit nit ku yaru ku teey ku dal ku am sutura si doomu aadama ah. hmm. ñu jàppale ko si combat bi ñaanal ko yàlla mun bëreek euh, adversaire bu doy waar muy Jacob bale hmm. mais ñu li ñu gëmoon ak sañ bi amoon mooy ko lu mu mënti xew Pape daan ak lu mu mënti xew Jacob moom daan Papa du daanu ah li mu ko def du daan déedéet bu dara amul woon day day jugaar rek barke Cheikh Tidiane su dara amul woon waaw bàyyi yéen yàgg ngeen si làmm yàgg ngeen si daan làmm hmm. ñëw ngeen si bus bu ne fekkee ngeen tamit bis bu ne ku xam papa mun daan ñëwee ak samedi ni mu ñëwee xam ni papa bu woon ak papa bi du benn. Ah, gisuñu différence de. waaw waaw gisuñu différence waaw ku xool papa ak papa bi xam ni du si. Hmm. état si dal si yëngal esar bi ak am ngeen wér. non papa moom état bi mu indi. Mhm. yàgg na ko indi ci làmb parce que papa musul simmeeku. Mhm. ñu ne yorul état bu baax mhm. euh, concentration gis nañ ko ci moom mhm. c'est normal parce que mbër moo xam ni dafa tegle ay défaite la mhm. mais wàllu mystique bi ñoo gis papa concentré wu ci mystique bi bu baax te ci làmb ji digg géew bi daal mystique feeñu fa sëñ bi waaw parce que lu tax mu concentré wu ci mystique bu baax parce que bis moo ko laaj bis moo tollu foofu ba pare ñu doon dajal tamit ñoom loolu lañ yaakaaroon su ñoom lañ jàpp ñu dañuy ñëw rek jàpp papa du ma ko daan ko dem Hmm. ba ñëwee nag bés làmb ji lu tax làmb ji am coow lu tax làmb ji jaxasoo lu tax làmb ji mujjee foofu lépp ñoom ñoo ko waral parce li ñu yaakaaroon amul hmm. li ñu foogoon amul dax ni bu ñëwee sam dañuy téye papa duma ko daan mu jeex ku ne dem te demeewul nañ ni ku mel ni Zil Balde ba combat bi leen dem nañ ba xamante ni fi ñu taxaw di yëngal si policiers yi di déconné si arbitre yi te loolu yëpp seen mi ngi taxaw ñu koy calmer kon ñun lamb dañ faa seetlu ñaar ku ma am nday ak ku ma amul nday su dana woon ni zilballe Jacob am na papa yi mbër am na maam mbër loolu leen tax ñu woon ni papa amul dara waaye si fulam ak si felam ak si jomam koroom ñoom loolu yéem na leen jaaxal na leen bis bu toll noonu ñaari xale di ko bëri muy Jacob ak papa ku ne mën a daan sa morom Ama Baldé nekk kilifa nekk responsable di bëri titre roi des arènes waroon na am beneen taxawaay bu mu taxee waroon na am beneen xar kanam bu mu taxee bokk bu mu taxee krok ndax papa moon na wër nomba Jacob hmm. yàlla dogal Jacob wër nomba papa ci dugg si jéebi ba mu duggee Ama Baldé waroon taxee benn taxaw ndax moom mbëru askan la mbëru àdduna la bu jugee Pikine gépp jug ndax moom moo tiitee drapeau Pikine tey waa Pikine moom nañuy tiitaroo waa Pikine moom nañuy ndamoo te papa yàgg naa dégg saa yoo xee ne sama kilifa la Ama sama papa la Ama sama lii Ama saa yoo xee ni papa sama doom la kon waroon na sàmm loolu sàmm ni ay raqam ñuy bari ay jabatam ñuy bari mu def si taxawaay bu rafet kon moom nu mu taxee moom rafetlu wuñ ko ñëpp. mais ku dugg ci géew bi est-ce que bi war naa dugg ci géew bi moom it. ku dugg si géew bi dugg si waaye xol. bàyyil ku nekk ak sa xol lu mën kooku xëy na am na fu mu toll si papa papa am na lu ko jaral kooku koro ñëpp xam na ni laa ma si joroon bakkan moom mu joxe bakkanam ndax loolu la wane koro wóor na bu doon bakkan rek mooy tax ndam yàlla seen ko moom day joxe bakkanam. est-ce que Ama Baldé bu dee bakkan rek moo tax Jacob di di di am ndam moom it mu joxe bakkan. waaw waaye ñi ay xale lañ te Ama kilifa la soo demee ba war a bëre titre roi rek am na ko doon si làmb Ama Baldé dafa am tey benn xar kanam bu ñuy di xaar si moom mu leen di boole nit ñi di defar su moom ñu toog si ginnaaw moo bari waaye kon ku gis geste bu mu def arène nationale fekk kii dafa toog nga wax ñu ba si moom saaga ko ndey dellu loolu kenn rafetlu ko kenn kenn kenn kenn kenn rafetlu ko tooñ moom juyee si yaa tooñ mais Ama Baldé responsable la dafa war a fekk ay nit taxaw di àllu di saaga di reyante mu ñëw boole leen defar. instant rôle boobu la am biir Pikine mais pas comme ñu taxee stade Iba Mar loolu moom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñaaw nañ ko di ko ñaan su bañ yónnee rek mu bañ taxawee taxawaay boobu noonu. d'accord hmm. boobu moom loolu la ñuy wax si moom. Hmm. carrière papa booy jënd loo ci gis. ah papa xale la ah il papa xale la. est-ce que papa du du du bàyyi bëre. waaw déedéet gars yi bàyyi Eumeu Sène moo gënoon métti carrière papa. Hmm. bëri na fi ñaata combat teg la ay défaite. toog su ma juumul sept ans wala six ans yoo xam ne ba mu ñëwaatee tey gis nga teranga go yàlla defal si làmb hmm. yàlla mooy joxe ndam yàlla mooy xañe waa koro koo gis xam ne def na fulla def na fare def na jom li ñuy wut si mbër lépp ñu ngi si moom hmm. tolloogu sax fu muy amee bay ñàkk day gën a defarwaat gën a entraîné waat gën a jàppat ay nitam fonkan ay mbokam ñu wax si si kattan suñu borom moom dina ko dégg moom champion moom dina ko nekk si ñuy baax nekk si naa waaw booy jënd si kattan yàlla mbaaxam dina ba mu nekk centre Baye man duma duma ragal te du ma ànd ak ku ragal. Hmm. te papa korof lu mu joxe ak lu mu war a ma dal na sama xel su fekkee ngëm naa ko cent naa ko gën a ngëmbaat deux cent te ñun xam nañ fi ñu jëm ak moom te si kàttanu yàlla xipp leen seen bët di xool ñu xool si kanam. mais sëñ bi li ma jaaxal mooy papa ci ci ci yan combat nga ko commencé ñaanal parce que comba bi weesu rek laa la mës a gis. nga ñëw stade ànd ak moom. waaw papa rek c'est la première fois ma ko. da nga a ci combat. da nga ko doog a ñaan si làmb mi nga soog a ñaan te incha allah ko gunge ba mu nekk roi des bi muy ñëw ci yow. Mhm. nga koy ñaanal. Mhm. ci ci ci défaite yi mu nekk. Mhm. da nga gëmoon ni yow mun na jóge ci défaite avec ak ni mu ñëwee ci yow. waaw papa bu muy ñëw si man man sax bu ñu la woo si man sax man ma ju fekk ko. Hmm. man maa amoon yéene ñaanal ko man maa amoon ñëwante ci moom pour ñaanal ko mu nga mbër bu nekk si ay jafe-jafe nekk si ay defet hmm. nga dem jël engagement ak ñaanal ko kooku am na loo yaakaar hmm. ak bis bi nga ko ñaanale ak ñu waroon tenteel pour bëri muy kër gu xam làmb kër gu mën làmb ma ñëw taxaw dëggal sa bopp ni ko billaay barke Seexu Tijaan fukki combat tey doo daanu te bis boobu fukki combat paa mu daanu foo ko tegoon loolu. dañ ko tegoon si liggéey liggéey bu wér si baatin man ku ma xam si làmb bàyyi rek xam ne aw temps sax pour ñaan làmb ay instant wala ay weer man ñaari fa ñetti fan rek laa liggéey làmb yàlla def dañ koo topp weer chaque jour dem nañ ba recevoir duñ kenn si làmb ji la nekk saa ñu xëy si làmb li nekk chaque jour si làmb li nekk am fu teg làmb yi gën koo bëggoon sax ndam ka moom ñun ñoo ko gënoon a bëgg làmb yi parce que am na lu ñu bëggoon wane am na lu ñu ko bëggoon wan moom. pour won ko ne moom day yàgg mais day nekk champion te si kàttu hmm. moroom si sëriñ si hmm. léegi ma gis dimanche bu jot hmm. ñu génn ne diw day daan kii ne diw day daan ñaari mbër yu bëre Balla gay muy bëre Gris kii ne Gris Bordeaux mooy daan kii ne Balla Gaye mooy daan faw kenn am ci ndam est-ce que jotul ngeen bàyyi di wax ci làmb yi nga xamante ni ñaari mbër yi ñooy bëre ngeen génn def sorti ne diw mooy daan diw mooy daan waaw xam nga àdduna moom lépp loo gis tolluwaay la. Hmm. nit ku nekk ak fu muy toll si àdduna. Hmm. nit ku nekk lu koy jaral. parce que ñu ñëpp toll woon nañ si jamono boobu lamb bu amee ñu gën diw mooy daan waaye soo demaatee ba toog waxtaan ak say mbokk waxtaan ak say nit day xam ni amul njariñ amul sens parce que àdduna toll na foofu te ni maanaam lépp loo wax si internet fii vingt ans fii trent trente ans quarante ans day moo xam nga wax dëgg wala nga wax safaan. Hmm. te bala Gaye mu ngi fay ay million mu dem ngémb ak ay mboqam Gris Bordeaux mu ngi mu dem ngémb ak ay mboqam ku ne am na lu wóor lu am nga lu wér la dee te ni ba ngay ko ndam nga indaale Gris Bordeaux bu muy dugg si day ñàkk làmb ji kenn ñu mu ko wat dee lu wér yor na lu wóor ndam yàlla suñu borom moo ko man nag parce que ñoom ku nekk sa gis-gis ku nekk sa yoon waaye man moom si kàttan yàlla mbaaxam dootuma wax si làmb diw mooy daan wala diw dañ koy daan. Hmm. waaw dootuma si wax moom si kàttan yàlla mbaa xam. xanaa boobu da nga koo xamatul. <laughs> bay lam moom feeg yàlla mi ñuy may guddi fan ak wér. Hmm. ñu si bëgg def rek lañ si def ñu si bëgg def ndax ñu ay xeelan te yàlla daf ñu am lu ñu may ñun dañoo wax ma sax lam mais xëccoo lépp lu xet xëccoo yàlla mënu ko jagleel dina ko mën xanaa lu ñu bëggul mais bu ñu demee bu xëccoo rek des ba li ñu gën a suñu duggee ceeb yëpp dañ koy génnee. parce que ndam man daf maa jaral lu ne hmm. ndam daf maa te nag dootuma def yenn sacrifice yi ngir yenn nit yi papa moom xam naa ne dinaa ko téye ak sama fukki loxo juróom bis mooy Modou Lo maa ko bëggal sama bopp ngir jëm sëñ Babacar li ma war a def moom dinaa ko def kenn ku ñëw ma ñaan tam dinaa la ñaan waaye xam naa ne moom ñaan yi bu ñu bëree sama bakkan laa si teg loolu moom wér na ma hmm. waaw combat Modou Lo Ama Baldé deux mille laa la jël si woon nga ne ma combat bi du am ren mhm. déwén mun naa am mhm. ma dalalaat la plateau yow ak Mouhamed Press Benjamin nga ne ko làmb ji tamit du amaat ren mhm. mu nekk trois ans yoo xamante ni wala deux ans yoo xamante ni wax nga ni làmb ji du am actuellement combat bi noo ko gisee combat bi Modou Lo Ama Baldé Sénégalais yi ñu bari bëgg nañ xam ba xam làmb jooju dina am wala du am waaw làmb Modou Lo Ama Baldé dafa taxaw juste nga ñëw jël ma même pas une man la combat Modou Lo Ama Baldé kenn du ko bëri 2019 nga invité waa ñu plateau maa ma Benjamin maa xam la même chose combat bu bàyyi li laq si dafa bari hmm. si galaaj ak xeetu ñaawteefu galaaj yi man sax su ma amoon lu ma gën a combat bu du am hmm. yàlla seede na ko su ma amoon lu ma gën a combat Ama Baldé ak Modou Lo du am parce bu amee lu si bakkan si war dina bari ndax combat la moom te ni maanaam nekkatul làmb daal combat bu nekk jaar na fi nag nekk combat bu dafa rax te lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg bàyyil da ngay ku mel ni Abdou Bakhoum hmm. kilifa la papa la a Baldé nu mu nekkee doomam nan la mënoo nekkee doomam Ama Baldé am ñu ko bëgg mu yor jabar yor doom ay mag am ay rakk munoo yor jabar yor doom am ko bëgg am ay yëpp mais dañ koy dégg muy wax ay kàddu yu doy waar si Modou ñu ko bëgg suñ ko déggee neex. mais li mu wax est loolu yëpp ci làmb la rek. waaw waxul wax yu déstabiliser Modou Lo. waaw baa jël Modou Lo kenn mënu ko déstabiliser ndax Modou dafa foor mentalement Modou Lo amul benn mbër walla benn staff mbër bu ko mën a déstabiliser amul ndax mental bu baax la yor. mais am na yenn yoo xam ne suñ koy dégg ñun ñu ko jege wala ñu bëgg mu tamit du ñu neex te du baaxum nit la ko nit ku ku ñu fonk la waaye ñun Pikine dañ am cër parce ñu bëgg Pikine am ñu yaakaar Pikine am ñu woo ñu man combat boobu combat bu ñor la woon li ma waxoon démb ak bag démb su laa nekk ba tey hmm. baa jili saa yuñ ko bëree joxu ko fagawul hmm. saa ko bëree nga daal wax defaa nga romb sax mu wax si combat Modou Lô Ama wax si lu doy waar mu lay wóor ni yow yaa tax muy wax nit romb na ma ku ko joge mu wax ba saaga ndey ma si xool ko mu xool ma maree dem mais man wér na ma ni saa ñu ko bëree rek ñu ko fu ñu ko foogee foogeewul waaw loolu moom wóor na ma kon xam nga nañ si def lu rafet parce lam la jom te ni askan Sénégal ñoo ko bëgg ay supporteurs Modou Lô dañ ko bëgg ay supporteurs Ama Baldé bëgg ko waa Pikine bëgg waa Parcelles bëgg ko mais xeeñagul ñeex si dina am. Hmm. waaw xeeñagul ñeex moom. maanaam daal ñàkk am moo gën a wóor ko am. mu ñàkk am moo gën a wóor maam. ah combat boobu da warul yàqu ndax àdduna bépp a ko bëgg sax. waaye nag Baye Djily ñun Sénégal dëkku teraanga la te jàmm leen xam. Hmm. boo xoolee démb komba Gris Bordeaux Balla bi dafa neex. ñu mm. bëri ko si jàmm bëri ko salaam kii daan daan ki daan daan ñëpp ànd ñibbi si jàmm comment Modou Lô Ama Baldé du demee noonu mm. comment Modou Lô Ama Baldé du demee noonu lu mu metti metti metti metti kenn ñaanu ko yàlla waaye bu amoon tey nga gis lu doy waar nga gis lu yéeme wala nag bu dee ba jar ko ndax combat bi kon ñu ñaan combat bañ am moo ko bañ am moo ko gën mm. jërëjëf sëñ bi maa ngi lay jaajëfal bu baax mhm. xam naa ni di duufandoo ci nag bi xajandoowul ci cin bi mhm. mais ñu ngi lay jaajëfal bu baax waaw bari ñu ngi amaat contentement bu yaatu si dalal bi ñu dalal di amaat mbégte bu yaatoo yaatu yaatu mhm. wasaare moom saa ñu dékkee micro dañuy sawar wax ndax suñu kër la suñu lépp la di la ñaan jàmm di ñaan la waa Sénégal gépp jàmm nekk Europe fépp fu waaye nekk si Europe di soppee sëñ Mor ma lay siyaar bu baax a baax a baax di maat contentement bu baax si Parcelles Assainies Hmm. un ba vingt six xam nga ñoom laa am ba lu ma am parcelle laa koy yóbbu hmm. fa laa juddoo fa yoroo surtout waa quartier Déggo li ma doon tey lépp lépp lépp lépp ko def hmm. maa ngi leen bu baax di am contentement bu baax waaw suñu waajam ma Abdou mhm. moom mu ngi ci dëkk bi waaw maa Abdou mi ngi fi mi ngi fi dafa nekkoon see ah, maa Abdou da bàyyi na dafa nekkoon see yite boppam rek waaye mi ngi fi moom nit baax la moom ñu ngi koy bu baax baax a baax a baax a baax borom bu rafet la taalibe Cheikh la